bokki jullit yi gannaaw bu nu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp lu ñu yëg ak lu ñu yëgut tey balu xaq ñépp lu ñu xam ak lu ñu xamut yàlla na nu yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yépp ci bis bii nga xam ne ci lañu génn te doon ci jàngat ak a nafar dundug bu tedd ki seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moomu nag di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana jafe lool walla sax munta am nit di jaar ci moom di jariñu te fekk yorut pas-pas bu dëgër bu wóor bu set wicc boo xam ne du doon ni ko nit ki di yëge rek walla ni mu koy tànne waaye daf koy teg ci anana ko ko suñu borom sante jaarale ko ci njàngalem yonent boobu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu borom moomu nga xam ne nag moom moom lépp lu ñu xam ak lu ñu xamut fu dara nekkit moo ko fa def tànn na ci biir moomeelam googu loo xam ne moo ko moomal boppam ci ñun muy sunu warugar ñu jox ko ko delloo ko ko ba mat sëkk muy teg ko fa mu war a tege ñu xam ne moom rekk la saa bu nit ñi demee ba rët walla ñu tiit moom rekk ngay dégg ñuy woo waaye saa bu ñu demee it ba nga xam ne mbir daanu na ci suñu kawit bu ñu ko jéemee teggi teggi mënuñ koo teggi it dañ naan yàlla rekk moo tax ku dugg ci li ñuy wax amniyatul aqida pas-pas boo xam ne yow nim la wóore ni sa doom sàngam nàngam la tudd benn ñu jox la aw turam walla nga joxeel ko sa bopp walla diw ak diw ñooy say wayjur noonu nga ci amee lu la wóor ba feeg yaa nga ànd ak sam xel saa bu ñu la ko laajee nga xame ko noona teg yàlla fañ ko war a teg loolu ak xalaat yàlla am ci ñun joo xam ne saa su nekk dañ ko ko war a delloo buñ bëggee bis yu mel ni yii nga xam ne mooy fi jàll lañ ca digal lépp ñu jot ca am na loolu nu ñu koy xame ci misaal mu gën a jege bokk yi pas-pas bu wér kenn du ko tànnal boppam ni muy tànnale boppam ban banque lay yóbbu alalam di ko fa dénkaane moo ne bokk yi bari nañu dénkaane ci banque te kuñ taseel doo ko xam waaye ñoom xam nañ lañ fa am ñañ ko dénk xam lam fa am waaye lu tax duñ dox ci mbedd mi di ko fësal naan banque sàngam am naa fa nàngam tey fësal fuñ toll sama digganteeg sama borom nii la demee sama digganteeg sama borom nii la demee loolu moom mi ko xam xam ko am njariñ yàlla mi mii xam loolu mu amal nit njariñ su nit ki waxee dëgg yàlla xam na su waxul dëgg yàlla xam na nit ñi jëriñu koo seereel ndax yuruñu nattukaay yooyu ñu koy xame moo tax ca nguur yu jëkk ya te lislaam daan àtte ëpp na téeméeri at léegi am na ci réew moo xam ne ba ko kilifa ak diine yilifee dooleem ak kàttanam man-manam joti ku joti fu nekk joti ci ku ne dañoo demoon ba am ñuy jàdd ci ruq di wan nit ñi ne leen kii yàlla juy dox ci kaw suuf la rek ndax lim man yàlla rek a ko man yàlla mi ñuy gékk waaye ba mu ko yëgee daf caa jële wéradi gu metti ndax tiit bañ a gëm loola bañ yàlla xam ne gëm na loola ci waxin yàlla xam ne lépp waaye ba mu àndaateeg sagoom daa jël raaya wa ñuy xàmmee réew ma bind ca yaari bind ad diinu lillah wal watanu lil jamia yàlla moom kenn rekk mooy yàlla te loolu saa su nañu di ko fàttali ñu bare bari di ko fàttali waaye nag léeg-léeg nit ñi day mat a day mat ñu taxaw foofu tuuti bokk yi kuñ la mën a wax ne la mooy yàlla boo mënee lim kenn ci ay mbokkam rek benn nga ne diwu ko jur yàlla moom lam yulad buñ ne la kii doomam la it wala sëtam la it tuuxu na lam yalid kii la daan àndal démb ak barki démb faw su boobaa dana am ku manqué te du doon yàlla ak a neexoonub gis lu mbind ma saa sew sew fël lay taxaw xool ko gis ko aka seetaan aw làmmiñ aka nànga moom moom soo ko déggee ci wolof rek mooy loola nekkatu tuxu na te loola moom lu ko suñu borom abaloon rek la su demee ba mënatu ko mu jëlaat ko dese ko moom kooko ran du ñu seet keneen aka guddoon aw fan kon nekkatu fi loolu nag li gën a néew ci li ñuy xam ci kan mooy yàlla dëgg-dëgg moo ci gën a néew moo ci gën a jege nit ak a neexoon ak a neexoon ay gët nit nuyu ko mu ne kooku ñu ne ay waji diw de fa mu nekkoon nekkatu fa léegi mi ngi may laaj maay kan sëgg ca nopp ba daanaka xaw a yuuxu mu dégg ca tuuti am na foofu sax su fa waree wax déedéet danaan ah waaw waaw ndax li nga ko wax ràññeewu ko am na suñuy dem ba duñu xàmmee seeni doom am na mag mu nekkoon Tuubaa ku baax la woon ku baax a baax dem naa dema dem ba lim xam ci kaw suuf ci lu muy xàmmee mooy waxtu julli kenn du ko ko wax fam yemoon démb ci alxuraan it kenn du ko ko wan moo koy xoolal boppam bu neppee tegaat fa léeg-léeg nit ne ko may sa doom diw mu ne déedéet mosuma am ku mel noonu te moo ne weddi gam ko weddi kenn du ko ko jàppe daa toll foofu rek kon yàlla day ab la rek mayewut sax day ab la rek ndax lu lu lu ñuy maye bu kala koy may bala ko xasee ba may waratu tàggu ak yow mu doon sax moomeel waaye yi ma tudd ak yi ma tudd yépp bara nañu ci jaar ñàkk ko mu dem ci yeneen loxo ñoo ña mu ne ci seen loxo nag bu ñu jàpp ne ñoom dañ ko moom féete woo ko day mas a génn ci seen loxo dem ci yeneen loxo moo tax su jaamu yàlla waree ab jaam ittaqullah fattaqullah ittaqillah yooyu yépp li muy tekki mooy liñ la sant bul seet yow nanga ko bëgge ak nam la soobee waaye xoolal nañ la ko digale te am na xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy wax ne lii nit war a def lépp yàlla leeral na ko ci alxuraan ak ci waxi yonent bii nga xam ne alxuraan lay gën a leeralal nit ñi yi yi mut a def yépp leeral na ko nàññi alxuraan sax bañ na ko ba buy tere la muy tere doon ne lu mu ci jublu li muy digle nga naan lu mu ci jublu léeg-léeg ku ne dégg ko waaye li muy tere day leer nañ ci misaal su ne bu kenn naan sàngara ndax day tax a def nangam di tax a def nangam dox nañ ba jamono dolli ci ne wéré di sàngam ak sàngam ak sàngam ku ko bañ a am na fa bàyyi sàngara ba ko yonent bi wax ëpp na junni at ak ñeenti téeméeri at bu leen lekk mbaam mbaam nag mbaam xuux ak mbaam yi ci àll bee ci yam am nañu ñu wax ne sax mbaam yi ci àll bi moo moom lañu doon waxal xam kon yi ci kër gi da ciy duggaale yi nga xam ne day fuux fuuxi yooyu it ba yonent bi wax ne yàlla nee na nañ ko fa bàyyi te foo ko gis ci adduna bi xàmmee ko moog bi ma jëkk a wax sàngara dox nañ moom it ba léegi ne am na wéré di sàngam ak sàngam goo xam ne lekk loolu da koy joxe loolu ña koy lekk am na suñu dem ba xam ko ne suñ ko xamoon dutuñ ko lekk kon ab jullit yàlla teel na ko noppal moom ci du tànnal boppam li muy fas lu mu doon waaye dañ naa ko nangam ak nangam ngay fas pas-pas ba wér nee na li leer te nit war koo def moom mën naa nit mën na koo xam ci lu yomb li muy tere it mën na koo xam yu bari la dama ci tudd yaar yooyu rek waaye seen diggante am na ci yoo xam ne léeg-léeg nit taseeg moom te du xam lu mu doon te du xam lu mu doon koo xam ne dañ naa ko yàlla nga waaye boo ko xoolee ci màndarga yi ñu la waxoon ci ku baax rek yépp day nekk ca moom dana jafe nit ki ràññee ko waaye déglu rek ba xam dana ko wet dem déet suñ ko ne yàlla nga mën a cell ma mbay boo nga seeti keneen xam ne kooku du waaja ndax su nangoo doon waaja garab bu la neex na nga ko ko takkal nee ko xam naa ne yaay joxe xam naa ne yaay xañe xam naa ne ku wér yaa ko ko jox ku am ku ñàkk doom bu la ko ñaanee am ko ku amul soxna bu la ko ñaanee am ko ku amul place bu la ko ñaanee jox am ko waaye nag yi yàlla moom moom soo ko dee limal waa ji bul ci boole mukk ku dee yaa ko rey boo nekk ku dee yaa ko rey moom ay buum dana ko féete gannaaw moom dana bari buum loolu moom su boobaa xoolal rek ba xam soo ko nee ku rey ku mas a faatu yaa ko rey rek loolu moom fa saasa la koy daal di wedd na musuma rey kenn te yàlla huwa yuhyi wa yumiit ba noon ba taajee seydina ibrahima alayhi salaam di ko téesanteeg moom ne ko yàlla mi ngay wax mooy kan mu ne ko yàlla mi may wax de mooy rey di dundal rabbi alladi yuxyi wa yumiit kàccor ba nekk loolu mën naa ko daa di wóolu ñaari nit fañ leen dencoon ñu ñëw taxaw ci seen kanam mu ne rey leen kii ñu rey ko fa saas te la ñu ko lutum def bañ di ko rey doolee moo toll noonu mu ne kii bàyyi leen ko mu dem ñu bàyyi ko mu dem dellootuñ ko fi ñu ko dencoon waaye lañ ko bàyyi mu dem yoonam mu ne gis nga def naa ko seydna ibrahima ne ko inna allaha yati bi shamsi min al mashriq fati biha min al maghrib yàlla mi ma lay wax moom mooy fenkal jant bi suba gu jot ci penk bi bu ngoon jotee mu tëral ko ci sow bi fa buhita alladi kafar mu ne yàgg rus am gàcce torox ndax mbooloo maanaam tollu woon te da doon dégg turu yàlla nga yàlla nga ba ba nangu ko rek bis ñëw suñu boroom waajalal waayam jox ko lay yu leer nañ ñi yu mel ne yii Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen fàttaliku andi moo tax bu jamono doxee ba yàgg xel yi xaw a lëj mën nañoo indi hadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam a waxoon ne lu jag ak lu jagut nuñ koy xàmmee lu jag moom mooy loo xam ne ku koy def benn xelam dana ci dal bu ca xelam dalee it ñaareel ba mooy du bañ ko ko fa fekk ñetteel ba it du bañ ko ko nettali waaye safaan ba nag mooy loo xam ne kii bu koy def day dugg ab roq tëj ko duggaat ca beneen tëj ko duggaat ca beneen tëj ko defe ne moom dong moo fa nekk loolu nag kuy def mbir àgg foofa xam na ne bëggut kenn ku ko gis waxuma la di ko nettali ji lu yomb xam la waaye ku ñu naan yàlla it di ko jox wàcc waayab suñu boroom mu ne miig ne càll yàlla de waxoon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran ba ko gaa yi wëree naa ko may ma nangam ci misaal wax ju siiw la ci jamono ji may ma doom may ma place may ma ma mën a tukki yàlla moom dane woo yonent bi nee leen man mii daal maa ngi yéen ñoo bokk benn buur ñoo bokk benn boroom li ne ci gannaaw miir bi daal xawma lu mu doon lu dul ma wëri gis kook samay gët te dana ca bari lu mu xamut lu mu li ma nar a dal ëllëg it mënuma ca dara bu ma xasee ba dalit yàlla yàlla na ma ko wàcceel dong laa ca man laa amliku li nafsi nafan wala durra illa ma sha allah walaw kuntu aalamu alxayba lastaksartu min alxayr su ma xamoon wala ma man lii ngeen may ñaan di tàllal seen loxo jëmee ci man su ma ko xamoon wala ma man ko du ngeen gis mukk may fanaanee naafila du ma sa du ma ci saraxente du ma ci jokkonteeg bokk du ma ci seetante ku wéri du ma ci jaale jente mboo du ma ci gungenteem néew waxuma laa di ko dem di ko nangu ñu di ko denc waaye dama naan tugg rek di toggulu waaye kër kër jim nekke woon moom sallallahu alayhi wa sallam ba seydina muhammad al busayri di ko wax ci ab téeréem téere bi ñuy jàng ci weeru gàmm wi naan daana taxaw ci ay tànkam di naafila guddi ba tànk yi néew yi moo ne xiif bu metti la ko daa booleel te du lebi du yalwaani du ñaani kenn dara dem na ba sax doj yii tiim dëkk bi yàlla jox leen ndigal ñu waxanteeg moom wa in min cheyin illa yusabixu bi xamdihi walakin la tafqahuna tasbixahum naa ko tee nga ñoo soppi wurus ak xaalis dem jaay ñu ndax nga am loo lekk mu ne jomb naa ko soxnam ne ko dang-dang jii nga dëkke xanaa gëmoo ne yàlla nee na jéggal na la dutu la toppatu la dutu la topp mu ne dama ko ciy sant ndax defalu ma ko lu ko jar kooku kon xamoon na fam fa fa mu tegoon suñu boroom ak fa mu nekkoon moom nee na it turam yépp li ko ci gën a neex lim ci fàttaliku ba ca jiitu mooy woo gi ko suñu boroom woo woon bernel ko ci kanamam te kenn fekkewu ko ku dul moom ñaare ba lim ko wooyee ab jaamam subhaanallasi ladi asra bi abdihi laylan abd abdullah bañ nañ ko sax ba kuy dugg ci lislaam bu ne ashhadu an laa ilaha illallah booy tudd yonent bi da ngay wax fonction bi mu yore mansib wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdullahi ngay jëkk a wax teg ci rasulullah kon su yàlla jàkkaarloo yonent bi ne ko ku ñëw nan la teggal ma sama wéré digi ak yooyu ma jëkk a tudd yu mu koy ñaan nee ko ah bu soobee yàlla day bu ci sa wërsëg nekkee sa muur nekk ci kenn mënu la ko xañ waaye bu ci sa muur nekkut nag moom kenn mënu la ko jox wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadli ku yonent bi wax ku yàlla wax loolu nag tamit rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li wolof di wax rek di ko léebu da cey daal di am lu dul yàlla ak neen la lu dul yàlla ak neen la nag li fekk ab jullit àggugut foofu xam ne lu muy séen rek di ca teg bëtam du yàlla laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir lahu maqalidu as-samawati wal ard yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim feeg nit àggagut ci lu dul yàlla ak neen la moo xam dañ ko bund xataal moo xam dañ koo tëkku moo xam dañ koo tàllal loo xam ne dañ ko koy jox te mun koo ñàkk bu mu tax mukk mu nangul kenn walla nangul lenn lu yàlla yaayoo ndax bokk yi yàlla moom yi may wax léegi alladi huwa yuhyi wa yumiit suñ maam yépp ñañ ca xam ak ñañ ca xamul ñépp yàlla moo leen fi jële ñii ñëw ëllëg it xamaguñ seen tur nu muy tudd xam na lépp kon boog lii ñu fekke tekki suñuy gët nañ xam ne moo ñu gën a xam lan la ci nekk fu muy mujj waaye nañu ko teg fañ ko war a teg su boobaa lum ñu war a yónnee danañu ko yónnee ndax kat koo mën a toppi ku dul yàlla topp yàlla nag doo yor ay tànk mu mel ne day dox ngay dox li gën a garaaw ci suñu diggante ak suñu borom mooy nga def ko jëmm waaye ni ñu koy toppee mooy topp ay ndigalam charaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuxa walladi awxaynaa ilayk ba àgg ci tudd Muusa tudd Isa tudd Ibrahim ne ñoom ñépp li ma leen digaloon mooy an aqimu diina wala tatafarraqu fii kabura ala almushrikiina ma tadcuuhum ilay kon di seet nam ko digle te bañ koo xool nañ ko bëggee moo xam ñu nekk ci jàmm saa su nekk ñu misaal ko foofu laay jeexale da ngay dégg wala sax xat-xat am rek nit wéré di lool ñu wéré di ñëpp yàlla na yàlla saafara fenn fu nekk ñu ne ndax yóbbu nañ ko fa ñii danañ ko wax ca kaw ndax seeti ngeen diw ñu ne dem nañ fa ñu ne da ngay di dem ca diw soo demee nag soo ko nee dama bëgg nga defal ko li defal ko laa rek du loo ko defal fekk bokk yi kooku dañ koy dóoral nit ñi rek da ngay toog kay ba mu soob ko rek mu def ca lam cay def mënut dara su demee dem ba nga xam ne tën a ñépp baat bi ngay dégg ñu wax ko saa boo déggee nit ku ñuul wax ko rek nit ku ñuul laa gën a xam amatu ci yaakaar nañ ko bàyyeeg yàlla te moo ne ba muy soog a door bi ñu ko bàyyeewoon ak yàlla yàlla tëlewu ca dara alxuraan nettali ko mat na yaar ba yett yoon tudd na ñu dugg ci gaal nee na bu ñu duggee ci gaal léeg-léeg géej gi naqari lool duus yi di jóge wet gu nekk di dóor gaal gi muy tëmb ak ak fitti nee na pexe muñ xamoon danañ ko def mu tëye dal pexe yépp dañ ko daan ñukk naan yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla am ñu naan dal leeni xel yàlla mi téye géej gi taatu taa taa taa taawu ko fàttewu leen moo ne ba mu koy wax ma nga tiit lool suñ demee ba wàcce ci jàmm nag am ca ñu ne ah man de tiituma woon ndax diw moo ne ma woon da nga wàccaat xamoon naan dama cajaat yàlla rek te moom moomee demoon na ba naan yàlla yàlla yàlla yàlla loolu ñu tikku ci avion xam nañ ko dañ naan leen takk leen seeni ceinture ndax ci kanam tuuti asamaan si dana yëngutu lool di ko wax ak a waxaat bañ dugg ci yëngutu ba ñoom seen nañ ko te ñun seenaguñ ko waaye ma nga nee dong lañ ci man ñoom xamaguñ fi muy mujj te moo ne ñoom lañ yaakaar ci avion bi waaye foofu yaakaar fa yàlla dong ma wóor muy talax talaxi ba génn ko ci jàmm ba ne cëpp ci kaw suuf si ndax nit kaw suuf si dong la xelam di dalee su ne cëpp allahu akbar ak subhanallah ak alhamdulillah déedéet dañuy tàccu naan pilote bi te pilote bi moo ko yéene ci yemoon képp avion yi nga xam ne sax ay jullit a koy dawal bala ñoo naaw danañ jàng ay ñaan yoo xam ne yonent bi nee na kuy tukki na nga ko wax ak ayat quraaniya yam ca nag kon bala ñuy àgg foofu ci ay xat-xat yàlla mi ngi ko wax ci alquran fa ida rakibu fi lfulki daawu llaha muxlisina lahu ddin fa lama najahum ila albar ida hum yushrikuuna li yakfuru bima ataynahum wa li yatamattaaw waaye fa sawfa yaalamuun danaa tasawaat ñoom ëllëg ak fi muy waxee loolu mi ngi ci suratu al ankabut am na fa muy waxee ci ay lëndëm lëndëm ci kaw géej ba tey wa ida gachiyahum mawjun ka zulali daawu llaha muxlisina la muxlisina lahu ddin falamma najahum ila albar fa minhum muqtasidun wa ma yajxadu bi ayatina illa kulli xatarin kafur kon foofu fépp bala ñu fa àgg nañ fab suñ yaakaar la ñuy seet jota guñ ca ñu ñaan ko yàlla moo ne ci alxuraan kuy ñaan bu dee ñaan keneen awma ca soxla dama koy bàyyee kooka waaye man soriwuma ko moo ma yëgul rek walla gisuma waaye man fu ma nit fu ma jaam wooye man kenn ma tàllal ko loxo léegi léeg-léeg nag nit yàkkamti naan yàlla yàlla ba yàgg mu bëgg ne naa seeti lu gën a gaaw waaye ka ngay seeti it bu gënee boo jàppee ne moo gën a gaaw it moom yàlla lay yaakaar ni yow kon yàlla nañu yàlla dimbale bañ fab suñ mbir yépp wér ko ci moom te wóolu ko te yaakaar ko te dëgërloo ko te wakkilu ci moom ndax kat lii fëkke bari na lool te sëñ bu mag bind na ci ab téeréem bu tudd Masaalikul Jinaan ne booy dox guddi bul def loo seen nuy leer nga defe ni weer la waaye booy dox bëccëg it bul defe ni lu wëneeru ci suuf rek tolloog miskit nga defee ne miskit la léeg-léeg nga jël ko ne ko ngëj sa bëñ dàmm ja yàlla nu yàlla musal ci loola yàlla nu yàlla dimbale ba ñu fekkee ko ay ati at te bu ñu koy fekke it yàlla dimbale ñu ba ñu mën a am dab yuñ ci taataane ba mën cee yóbbu lu ñuy jariñoo ñook ñañ ko yéene loolu nag day fekk ñu teg ko ci pas-pasub yàlla bi mu wax ne mooy pas-pas door koo jaar ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttali ko ko wala jàngat ko door ñoo jariñ yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin